alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahimi malik yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril mahdubi alayhim waladdaalina rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi daje ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo boobu a sahibul fadilati wa darajatu rafiati sëriñ tubaa sëriñ sidi muxtaar mbàkke di ñaan yàlla suñ borom mu yàgg fi lool te waaye di nuyu di ziyaare kilifa gi daarul xudóos gépp muy xalifatu cheikh mohamadul moustapha sëriñ cheikh ahmadou muxtaar mbàkke ibnu cheikh mohamadul moustapha al karim ñu ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njobootug Cheikh Moustapha gépp rek ak njobootug Daaru Xudus gépp ginnaaw loolu ñu ngi nuyu sëñ jëwrinu Serigne Touba ji fi nekk sëñ Yaxooba Géey ak sëñ moo Talla Sall mi nga xam ne ñoo jiite Miftaahu Nasri ak mboolem jëwrin yi fi teew ak mboolem taalib yi fi teew yépp rek di ñu nekk ci bis bu màgg muy isrina muharram di bisub yàlla waaye di bisub yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di bisub Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waaye di bisub Cheikh Moustapha al Karim di bisub umma islamique bépp ñu façon ko yéene taxawale rek ni ko sëñ bi bëggee woon muy taxasimuhu bi sunna wàccaay wi nag noonu lañ ko wàccee woon ndax bisub sëriñ tubaa ñu may nu tuuti ak déglu ñu may nu tuuti ak déglu ndax bisub sëriñ tubaa alquranul karim rek mooy li nga xamante ne mooy lépp sëriñ tubaa kanzul kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamoo fidda wala jamoo saab samam koom sama ndàmb man sëriñ tubaa du dara lu alxuraan ak addis rasulillahi salaa salaam waxoon ne bépp taalib bu aju ci man na dëkke alxuraan min ngeen gi téere waxoon ne maag alxuraan ba àjjana kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillaahi bii sakantu moo doon dëkkaaleb sëriñ tubaa kon alxuraan jooju nga xamante ne moom la santaane woon ci bis bi ci ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett bi ñuy waajal màggal gi ñaar fukki mat na ak juróom-ñett tey seegun ci bisu màggal gi tey jii ci bis bi jàng nañ juróomi kaamil kon kaamil yi mi ngi nekk fanweeri kaamil ak ñett buñ jógee ci alxuraan ji Cheikh Moustapha waxoon ñu jàng ay xasiida xasiida yooyu na ko waxe woon na ko diglee woon jàngal nañ ko ko ci wàccaay wi jës bul xuloo bi li àllaamil xuyub jàng nañ ci adadu umru seexul xadim bu tedd ga muy atam yu sell yu barkeel yi am ci zahir ci dunia ci 1852 ba 1927 di juróom-ñaar fukki at ak juróom waaye mawaahibu naafia fii madaayi saafia moom it juróom-ñaar fukk ak juróom lañ ci jàng muxaddamaatul amdah fii masaayal miftaax moom it juróom-ñaar fukk ak juróom lañ ci jàng xasiid ak miimiya juróom-ñaar fukk ak juróom noonu la ko santaane woon waaye ñoo ko jugal ati Serigne Touba yu sell ya rek jàng ko ñaar fukk juróom-ñaar fukk ak juróom waaye tuxfatul almutadariina moom it juróom-ñett fukk ak juróom wa kaana haqqan alayna nasrul muminina juróom-ñett fukk jaalibatul maraaxibi fi ka ajili raaxib juróom-ñaar fukk ak juróom xasiid ak sindiid yi 225 jaawatu bil furxaani 150 mafatihul bisri 50 ak ak ak ak ay eh, yaasin suuratu yaasin jàng nañ ko am na taalibe bu ko jàng fukki yoon lépp rek ñu def ko addiyatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ak Cheikh Moustapha Karim kon ñu euh, tëje ko rek kaamil kaamil yi juróomi kaamil yi nga xamante ne moom lan jàng ci bis bi tey ñaan lépp rek mu nekk leer ak yërmande ci mbooleem jullit ñépp rek ci mboolem fu julli nekk fu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk rek muy yërmande yàlla ju kawe ji yàlla na ko yàlla defal ci barke bi te li ci li ci eh, yonent bi diglee Sëriñ Tuubaa digge ko ci Cheikh Moustapha digge ko ci lépp ñu amee ko noonu ci barkeb Cheikhul Xadim bismillahi rahmaani rahim sadaqa lahu mawlana al-azim wa balaxa rasuluhu alkarim wa nahnu ma qaala rabbuna wa xaaliquna wa raasixuna wa mawlana min asahidina allahuma rabbana taqabal wa tajawas anna ma kaana fi tilawatihi min zahwi wa nisyanin aw taxrifi kalimatin aw mawdiit aw taqiilin aw taqdimin aw taqiilin aw ziyaadatin aw nuqsaanin aw tawilin ala geyri ma anzaltahu aw raybin aw zakkin aw tajiili inda tilawatihi aw kasalin aw suratin aw sayqi lisaani aw wuquufin bi xayri waqfin aw idghaamin bi xayri mudxamin aw izhaarin bi xayri bayaanin aw maddin aw tasdiidin aw hamzatin aw jasmin aw i'raabin bi xayri makaanin faktub mina ala tamaami wal kamaal wal muhazzab min kulli alxaan waxfir lana yaa rabbana yaa sayidana daatu axisna yaa mawlaana warsuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al aadai walxalbi wallisaan wa hab lana bihi alxayra wa saadata walbishaarata wal amaan wala taxtim lana bissarri walsaqaawati waddalaalati waltuhyaani wa nam bihna qabla almanaaya an nawmati alxaflati walkazalaani wa aminna min azaabi alxabri wa min suaali almunkir wa nakiir wa min akli diidaan wa bayit wujuhana yowma albaasi wa axti riqaabana min anniiraani wa yamil kitaabana wa yasr xisaabana wa sabbil miisaanana bilxasanaati wa sabbit aqdaamana ala siraati wa askina fi wasati jinaan warsuqnaa jiwaara sayidina muhammad alayhi salaatu wa salaam wa akrim naa bi liqaayika yaa dayyaanu istajib duaa ana bi xaqi tawraat wal injil wa sabuur wal furxaan aatina jamia ma saalnaaka bihi fi sirri wa ilaan wa zidna min fadlika alwaasia bi juudika wa karamika yaa raxiimu yaa raxmaanu allahuma salli ala sayidina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 allahuma ij'al alqur'ana lana fi dunya xarinan wa fi lqabri munisan wa fi lqiyamati safian wa ala siraati nuuran wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna annaasi sitran wa xijaaba aw xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaaman bi fadlika wa juudika wa karamika ya akramal akramina allahuma ihdina bi hidaayati alqur'ani wa aafina bi inaayati alqur'ani wa najjina min niiraani bi karaamati alqur'ani wa adxilna aljannata bi safaati alqur'ani warfa darajatina bi fadlati alqur'ani wa kaffir anna sayi'aatina bi tilaawati alqur'ani yaa sal fadli wal ixsaani allahuma ursuqna bi kulli xarfin min alqurani xalaawatan wa bi kulli kalimatin karamatin wa bi kulli ayatin saadatan wa bi kulli suratin salaamatan wa bi kulli jusin jazaan wa bi kulli xisbin xasanatan wa bi kulli nisfin nicmatan wa bi kulli rubin rifatan wa bi kulli sumnin sanaan allahuma ursuqna bil alfi ulfatan wa bil baa'i barakatan wa bi taa'i tawbatan wa bi saa'i sawaaban wabil jiimi jama wabil jiimi jamaalan wabil xaayi xikmatan wa bil xaa'i xilaanan wa bi daali dunuwan wa bi zaali zakaan wa bi raa'i rahmatan wa bi zaayi zulfatan wa bi siini sanaan wa bi siini sifaan wa bi saadi sidqan wa bi daa'i diyaan wa bi taa'i tahaaratan wa bi zaa'i safaran wa bil ayni ilman wa bil gayni qinaan wa bil faa'i falaaxan wa bil xaafi xurbatan wa bil kaafi kifaayatan wa bil laami lutfan wa bil miimi mawizatan wa bin nuuni nuuran wa bil waayi wuslatan wa bilhaa'i hidaayatan wa billaami alifi liqaan wa bilyaa'i yusran wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi atahirina ajmaina allahuma baliq sawaaba ma xara'naahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuhi sayidina muhammad alayhi salaamu wa ala wa ila arwaahi asaabihi radiallahu anhum ajmaina wa ila arwaahi jamii al anbiyaai wal awliyaai wal mursalina wa ila arwaahi abaina wa umahatina wa ixwanina wa asdiqaina wa asatisatina wa masaaixina xasat kaafatan wa ila arwaahi jamii almuminina walmuminaati walmuslimina walmuslimaati al ahyaai minhum wal amwaati ajmaina amatan wa ila jamii ashaabi alxayraati min almuminina walmuminaati allahuma unsur man nasara diin waxzul man xazala muslimina amin ya rabbal alamina bi rahmatika ya arhamar rahimina allahuma bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala nabiyuka al mustafa wa rasulika al murtada wa waliyuka al mujtaba wa aminuka ala wahyi samaai wa ahina ala zunnatihi wa amilna ala millatihi wajal min ahli safaatihi wa ahzur fi zumratihi wa asqina min qawdihi ya arhamar rahimin ya rabbal alamina allahuma ijal sawaba ma sawaba qiraatiha hazihi liman jaaltana sababan li ijtimaina haza wa aatihi bilqurani fi lqabrihi asiata alwaasiata walxujjata albaaliqata walxawlu zabita wa nuura almustabin fi lahdi lmuslim muslimi waljaafi l ard an janbihi wa arhamhu waxfir lahu wa liwalidayhi ya zal jalali ikram ya arhama arrahimin ya rabbal alamina allahuma aatihi bilquran al amna yowma alfazai al akbar wa arraxaayi inda siddati wa tasqil almisani inda alxifati wa taysir alxisaabi yowma al usrati والرحمة والورود إلى رحمتك والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فرجاء من فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز hadiyatan wasilatan wa rahmatan mutasillatan minka ila ruuxi abduka cheikh ahmadou bamba mbàkki xaadimu rasul allahuma ijal sawaaba ma xaranaahu wa barakata ma talawnaahu min kitaabika alazizi hadiyatan wasilatan wa rahmatan mutasillatan minka ila ruuxi abduka cheikh ahmadou bamba mbàkki xaadimu rasul allahuma ijcal sawaaba maa xaranaahu wa barakata maa talawnaahu min kitaabika alazizi hadiyatan waasilatan wa rahmatan mutasilatan minka ila ruuxi abdika se ahmadou bamba mbàkke xaadimu rasul allahuma awsil sawaaba saalika ilayhi wajcal nuuran yasca bayna yadayhi allahuma akrim bihi maqaamuhu wa yasir bihi xisaabuhu wa daai bihi sawaabuhu wa jaal raxifa almaxtum saraabuhu allahuma anis waxdatahu warxam xurbatahu wa tajaawaz an bi fadlika wa juudika wa karamika ya arxam arrahimin ya rabbal alamina allahuma tawaffana muslimina la mubadilina wala muqrinina wala fatinina wala maftunina amin ya arxam arrahimin ya rabbal alamina allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqima wa ala alihi xaqa qadri miqdaari azim bismillahi rahmani rahim alif lam mim innama sabil wala tujadilu allahu min kulli karimin akramahu man amahu an qaada lahu takarumu aslim lahu kullaka anil imani wala simil ihsani rahmani wajjihu bi sukri bila kufrani takum isa mahniran barke borom tuwa